ñii di waa agence nationale de l' aviation et de la métropologie amaloon nañ am ndaje ci àllarba gi ngir lancer officiellement campagne bi nga xamante ni day teel a yëgala population bi ci tàngoor bu métti buy war a ñëw. dajale moo doon doon waxtaan di xool nan lañ mën a jëmmal loo xam ne dafay dimbali askan wi ci ñu mën a xeex lépp lu jëm ci tàngoor bi. ni ñu ko xamee euh, euh, càngoor bi muy coppite ci tàngoor bi muy changement climatique ñu ngi koy commencé dund képp kuy seet di taxaw di seetlu gis na ni tàngoor bi day gën di yokk chaque fois léegi nag lu ñuy def commencé naa am ay jeexintal ci mbirum wér yaram ak lu mel noonu moo taxoon météo comme li nga xam ne ni ko gouvernement bi wax teg ko comme euh, mu nekk mission mooy fexe nu muy jàppale nit ñi pour ñu mën a farlu ci mbirum lépp loo xam jëm na ci mbirum climat ci benn fànn donc moom moo taxoon ñu xool nu ñu mën a liggéey ak suñu partenaires yi muy tey américains yi nga xam ne tey seen xam-xam màcc nañu ci mbirum prévision ci climat ak aussi suñu naw na yi nga xam ñooy travail ci mbirum santé nu ñu mën a def suñu doole ensemble pour xool nan la ñu mën a jëmmal benn système boo xam ni bis bu ñu xalaatee ni am na ay vague de chaleur yu war a ñëw ñu mën ko teel a wax population yi pour nit ñi mën a préparer wu. kii di docteur Mamadou Diop nekk direction générale de la santé daal dina ñëwaat itam ci loraange yi nga xamante ni tàngoor mën na koo indil doomu aadama ci mbirum wér gu yaramam. mais tàngoor bi tamit lu muy def ci ci santé wér yaram dafa grave puisque effectivement nit ki mun na ñàkk ndox su fekkee am na tàngoor te tamit yeneen feebar yi surtout feebar xol mun na ko aggraver donc ñun ci wér yaram ci waa santé lu ñu mun a def ci données euh, météorologique yi c'est que ñu tasaaroo ko ñu ñu ko ci district yi ci waa Kër Docteur pour ñu xam pour ñu fagaru surtout euh, ñoo xam ne dañoo sensible trop ci ci ci yooyu ci mag yi surtout mag yi ak xale yi. mu nekkoon ndaje bu ANACIM amaloon lëkkaloo ko ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na lool ci wàllum santé waaye itam ci wàllum météo waaye itam di leen wax ana yan jumtukaay la ñu war a jël ci bu jafe-jafe yu mel nii taxawee.